jaajëf euh, Ablaye Diop euh, jërë ngeen jëf Yacine Pouy jaajëf passe partout maa ngi lay bëggee auditeur rek internautes yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel seen journal des faits xalaas sur la rajo RFM 94 point 0 ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye maa ngi leen di siyaar noo def maa ngi sant yàlla bu baax a baax Ababacar maa ngi lay delloo siyaar maa ngi nuyu waa Sénégal di leen sant di nuyu inspecteur Ndoye Bane Bane maa ngi siyaar maa ngi lay siyaar di yëpp Malick di jàll Ndiaye ak ñiy déglu ñëpp. ndax lépp ngi dox. sant bu baax di ñaanal ñëpp jàmm rek yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ñi ko bëgg ak ñi ko bëggul yëpp yal na leen yàlla rof jàmm bu baax a baax jàmm am ci réew mi am bitim réew am surtout fële ca dëkk yooyu di xeex xaw ma Palestine ak Israël yal na yàlla def foofu jàmm. Palestine ñëpp am jàmm. Mm, ñëpp am jàmm ñoom ñu mën noppale. bala ngay sori may ma rek démb partenaire yi dama cee fàtte seen wéew. seen wéew dañuy partenaire bu am solo di ñu gunge ci xalaas. mais mm-hmm. également di lu am solo ci dund. Mm-hmm. rawatina doomi Sénégal yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew seen wéew boo ko déggee jumtuwaay yónnee ak jot xaalis la boo xamante ne ji bu war a jóge bitim réew ñëw fii ci Sénégal doo ci fay dara. Mm-hmm. Euh, moo leen euh, lu aju nag ci seen wéew ni ma ko ni ma ko waxee Euh, maanaam dafa am yu bari yoo xamante ne ji dañu ko indil doomi Sénégal yi nga xamante ne ñoo nekk ci jaspora bi suñu mbokki jaspora bi ak seen Wave mën nañu yónnee xaalis ci Sénégal te luñ dul fay dara yónnee xaalis seen ay soppee ci lu gaaw mhm. fi nga toog ngay toog te doo fay dara loolu moo ci gën a neex leneen lu ñu ci mën a jàppit moo di daal euh, lu aju ci euh, moom i leen bi da ngay télécharger application seen Wave ngir yónnee xaalis bitim réew ba Sénégal Euh, ki nga xamante ne ji xaalis bi nga koy yónnee notification boo ko jotee rek ci saa si lay dem euh, jëli xaalisam ci bépp point wave euh, te du ci fay dara ma baamtuwaat ko dinañu may lu toll ci cinq euro ci sa transfert bu njëkk ci code bii di jaspora loolu mooy seen wave beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas moo di Maxphone mobile di téléphone yoo xamante ne ji boobu léegi jotagu leen ci. déedéet daa fexe fexe ngeen jot ci ah, ngeen. essayé téléphone bi ah, comme abaa moom baromètre soog a génn mm-hmm. euh, voilà donc téléphone bu génnee day baax abaa yor ci baan yor ci ma mm-hmm. yor ci passe partout yor ci mm-hmm. bu ko defee ñu xam ko euh, fan yi gis naa la yaa ngi ci benn waaye biit bu ñëwee nag ma ko xoolal testel ma ko wala voilà testel ma ko rek dégg nga muy max phone mobile euh, max 10 bi nga xamante ne ji écran 6 virgule 6 pouces la mémoire 16 giga 2 RAM ñaari appareil photo euh, batterie bu mën yàgg lool nag moo tax ñu bari gën ko taamu bos ni mu rafete ak ni mu garanté ndax batterie bu toll ci 6700 mAh mhm. loolu moom da ngay wax ba sonn boo ko chargé sa xel day daal mhm. am nañ beneen model bu ñu naan Max 30 Pro mhm. boobu mooy téléphone professionnel yi ak écran bu yaatu 6 virgule 6 pouces mémoire 32 giga 3 RAM ak batterie 3750 mAh Android 10.0 connexion 4G loolu day yombal connexion bi di jël ñaari sim nag 33 834 75 66 33 834 75 66 ngir ngeen am ay information ay commande ci Max Phone mobile. ak mhm. modèle yooyu ma wax yépp am na solo am na solo donc baan euh, am na xale bu fi réeroon xale bi réeroon na fi ñu indi ko fi. mu doon seet pa ku papaam réeroon xale bu bu bu neexoon baat waaye te waxoon ba ma ah, jooy doon jooyloo ki waxoon ba ma jooy waaw mais laaj ba nag dama la cee da nga ma da nga ma na ma ko Ablaye Diop génn génneel merci bi kooku dafa feeñ déglu ma kooku dafa xëy laaj ci papaam ci suba gi mu feeñ mais kooku dama ko déggaatu ay midi kay la feeñ ah, mais yow dama la ci posé question Ndiaye mm-hmm. ni ko yow li ngay jooy xale bi ngay jooy baat neexaay baat bi wala rafetaay bi wala da nga ko yërëm ci li mu toog dund ba toog nit te gisul papaam loo ciy jooy yooyu yëpp waaw non luy loolu comprendre ma. xale bi la papa ji réer. waaw xale bu góor la wala jigéen. ku jigéen la waaw. mais Ndiaye. Mhm. ku jigéen ki bi mu ñëwee di laaj euh, papaam di expliquer fi papa ji euh, nekkoon nag moom fi mu dëkkoon ak yooyu. Mhm. baat bi muy wax ni bari mënuñu wax histoire bi baatu xale bi lañ lay wax ni mu mel. waaw dafa neex macha allah. gis nga Viviane muy woy mhm. noonu la xale bi waxee. Ah. te papaam baat baa la daaneel. <laughs> papa mi ngi fii Colobane. Euh, xalaat fexe na daal ba moog papaam ñu jokkoo la mu la. xale bi fu mu nekk. France la nekk. yow da ngaa dégg baat bu yow da ngay yem ci euh, arrêté sa laajte yi euh, ndax fekku la fi. yaa ngi laaj yaa ngi avancé. da da da ngaa nar a dugg ci erreur te man ma xam lu ma lay wax. waaw non non. bu dee ci baat bu neex bi nga jàpp. ba yaakaar ne ni baat bi mel noonu la moom noonu la war a mel. waaw ah mais man la dénkoon enquête pour ma xool. bu fekkee am na ci expérience yow. Ah, moo moo daax baat bi. baat moom premier ah, pas nga teg kooku exception. Ah? moo dàq baat. kooku exception la ko gis. waaye nag li ma ci wax moom ma jaaxal de. waaw. Ah, dégg na li nga wax bañ tekkil ko ko. déggul wolof noonu tekkil nañ ko li nga wax sa jooyeeg yëpp. mën naa ko ci français laaj na ma ni ma. Mhm. laaj na ma kii li muy jooy dafa maa yërëm. waaw wala mu lan lan lay jooy. man nag man ko laaj man tam xaw ma lu abaay jooy. yow de ku maanu nga. waaw kon day naa xaw ma lu abaay jooy. waaw naa ko corriger sax waaye. day bul ci sori li ngay wax ni yëpp bul ci sori. yow li mu wax kon déglu déglu ko. Euh, voilà, euh, c'est encore moi, c'est Marie, euh, enfin Marie Ferreira. Mais en fait, je fais ce, ce, cette deuxième annonce parce que je tiens à remercier du fond du cœur toute la planète entière, <laughs> toute la planète Terre, parce que mon message est arrivé à bon port. Et euh, grâce à, euh, à, à, Ibrahim, grâce à, à l'ami la, d'Ibrahim, à la télé euh, de, de, Dakar, euh, qui a diffusé ce, ce message de, de, de, un peu de euh, perdu de vue. Et, euh, et grâce à, à toutes euh, les personnes impliquées qui, qui, qui se sont mis euh, à à essayer de, de, de, de prévenir mon papa qu'il qu y a ce message qui passait et qu'il y a ta fille qui, qui, qui te recherche. Et euh, donc ce message, enfin mon premier message a été euh, transmis le, le, mercredi matin. Euh, donc, euh, et, et, mon papa, eh ben, je l'ai eu euh, mercredi soir, euh, hier soir. Donc, parce que là on est jeudi. Et, et incroyable, j'ai je, je, du mal encore à réaliser de, de cette formidable euh, vœu exaucé, parce que c'était un de mes vœux, euh, un de mes souhaits. Et, euh, et là, l'univers vient de, de l'exaucer. Et euh, je remercie, oui, du fond du cœur, franchement, euh, toutes ces belles personnes qui se sont mises à, à, essayer de m'aider et à, et à faire que, en sorte que bah, finalement, bah, qu'on se retrouve, papa et moi. Et euh, mon cher petit papa, ben, <laughs> bah écoute, euh, je sais de qui je tiens aussi. <laughs> J'ai discuté avec toi pendant deux heures. Euh, <laughs> donc je comprends un peu mieux aussi certaines euh, attraits de ma personnalité. Mais euh, en tout cas, merci du fond du cœur à vous tous d'avoir, de m'avoir écouté. Merci du fond du cœur. Et euh, soyez heureux et profitez de la vie. Et, euh, parce que on n'a qu'un papa, on n'a qu'une maman, et que la famille c'est important, euh, les amis proches c'est important, les personnes qu'on aime sont très très. Euh, magum jëmm léegi. gisu gisul woon papaam. Mm-hmm. ba fii jógee yàgg mais moog papa ji wax nañ ba juboo waaye daal nee na ma tekki nañ ko li abaa doon wax mais su fekkee abaa daf maa bëgg daal moom nee na du wujje su fekkee abaa amul jëkk amul jabar hmm. daal su tab su tabaskisee eh, ñu présenté ko ba waaye su fekkee dafa am jabar nag moom nee ko mariage forcé nee ko am na mais forcé <laughs> kiñ la ju may dal ko nee ko mami mami mariage forcé wax ko ko waaw <laughs> man mi toog wax kay xam ne man li may wax tiituma ci dara nee ko mariage forcé na ko forcé de te yaa ngi dem yaa dem noo ci génn pour nee ko moom maa ko xoolal sama bopp yàgg naa ko gis yàgg naa koo bëgg maa ko tànn sama <laughs> mais baan waaw baan euh, wax sax boo indi wax baan mariage yi di koy yàq bokk na ci xale yi sob gi ñu sob di xool seen téléphone jëkkër yi baan sa jëkkër tëdd di nelaw nga récupérer téléphone bi ci ginnaawam ubbi téléphone bi xool ko waxuma sax problème yi di am ak yooyu balaa problème bi am ab sàcc koy def sàcc <laughs> loolu foo ko fekk jigéen ku koy def sàcc nga maa ko wax sàcc donc mooy fekk sa nelaw mu jël sa téléphone sàcc ko loolu sàcc sa xaalis mën na laa rey sa xaalis su réeree ci kër ga jàpp ko kooku c'est une voleuse sàcc nga takk ah sàcc la de ah yëfi jàmbur moomoo ko jàmbur mu teg ko nga sàcc téléphone bi te yëgu loo jël ci nit ki te yëgu ko rek sàcc la baan bari nay sàcc nag eh, baan eh, wala euh, nga xool ni ñuy def ba mën a droit nga jàngi droit a nekk juge bii mooy atte. atte bu légal lépp lu nit di jël ci nit te yëgu ko te tàgguwoo ko loolu sàcc. <laughs> amul benn juge bu ma mën a. man daal man daal benn benn affaire laa ci gis. waaw mooy. Euh, <laughs> astaghfirullah. <laughs> man doo mën a soppeeku. ah déet dëgg la sa soppeeku. jigéen ñu bari jigéen ñi samay xarit lañ waaye nag ku koy def sàcc góor ku koy def it sàcc nga di. am na góor ñu sàcc seen téléphone yu jëkkër yi. ban fi ñu nekkoon seen problème mu góor ñu seen problème téléphone yu jabar yi. solo. waaw benn affaire rek laa ci gis. mooy man mënumaa comprendre. foo xam ne boo fa demee gaañu doo fa jóg. mooy da ngaa sa bopp foo xam ne yow boo ko xoolee ala kulli yàlla noo gis-gis fi la la naqari. bu fekkee gisoo si sa jëkkër juy doxaan. dañ ci gis sa jëkkër ak yaayam dina jëw. baa sa jëkkër ak sa sœur dina jëw ci téléphone bi. baa sa am ñu koy topp baa ñu koy topp. baa mu jot ci virement boo xamante ne bugguloon nga yëg ko dala ko doon nëbb. ala kulli yàlla da ci gis lu lay gaañ. Mm-hmm. Mm-hmm. loo fay wuti. te nga fekk sa borom kër di am ku muy. te te moo ci gën a tuuti. moo ci malheureusement lañ ciy seet. Mm-hmm. moo ci gën a néew. soo xoolee sa téléphone fekk. c'est comme jigéen également gis nga boo amee jabar di xool téléphone am. Mhm. da nga ca gis seen famille di la jëw yow. dëgg la non non euh, nga fekk loo wala wala wala benn erreur boo xamante ni mën a juum ci téléphone yónnee ko message boo xamante ne ji xam na ne bu la ko waxee maanaam moo bañ la ko moo gën mu la koy wax. mën nga sax muy faranto c'est tout. am na yoo xam ci gën a tuuti ah, ah. baan li la kii di wax. Ah, voilà mooy li ngay mën naa ko cee fekk. moo ci gën a moo ci gën a tuuti fekk lu lay gën a metti. waaw moo ci gën a tuuti si si muy farantu de. mën nga caa fekk mu am far ne. <laughs> <laughs> baan euh, baan fi ñu nekkoon démb. baan <laughs> <laughs> fi ñu nekkoon démb. visa ya mooy ci visa yi. ba an mën na ci ànd ak yéen yéen ngeen a nekk di di di neexal ambassade yi. neexal la ambassade yi am na loo xam ni loo loo loo xam ni riba la. yow da sa portable bi dama la koy ñaan nga ne ma soo ma koy ñaan da may jox dix waaw su ma la joxee dix mille pour nga may ma téléphone bi mayoo ma téléphone bi da ma war a delloo samay dix mille waaye dem ci ambassade yi ñun la sooy déposer visa da ngay joxe cent mille francs ma jox leen sama cent mille francs mayoo ma delloo ma sax delloo ma samay cent mille francs lu du delloo ma ay kayiti kese wax xanaa sax nga jël sax cinquante pour cent yi delloo ma. baan bu ñu la mayee visa ba pare. waaw. nga jënd sa billet avion. waaw yéeg ci avion bi. waaw yegg fi nga jëm. waaw. ñu refoulé la. waaw xanaa ki la euh, jox jaay vie avion bi da war a fayal sax. déedéet da yow sax dem nga ba. dem ba yegg consommé nga ko bokkul. yow demoo dañ man man na demande de visa yi ci ambassade yi. lenn laa ciy ñaawlu. mooy ñiy jël nit ñi di leen weer ci buntu ambassade yi. ñu fay toog di xaar. loolu moom ànduma ci. bu la leeree ne yow sa ambassade salle d'attente ba fa nekk dix personnes la mën a jël. joxel rendez-vous dix personnes nit ñooña mhm. bu ñu wàccee nga gëm bu ñu jeexee nga gëm yàlla te wàcc mhm. mais buntu ambassade boo dem fekk fay nit ñuy rang di dem mhm. pour di dugg sa am réew te bu fekkente ne yow da ngay dem Amérique ñu may la visa nga dajale li nga am fi dem Amérique dépenser ko fa ñëwaat dem ga nga dem Amérique njariñ la ci Amérique ah, mais du njariñ ci Sénégal na ñu bàyyi nit ñi ñuy rangloo ci buntu ambassade yi na nañu bàyyi nit ñi ñuy rangloo ci buntu banque yi d'accord loolu moom loolu moom du. amaa nag amaa nag. Ah, boo ma ñamoon xam ne heure baa ngi dem de. <laughs> dem Amérique jël seen xaalis indi ko fi investir nga ni loolu waa Amérique la arangé mais yow la gën a. arrangé ah, ba ngay ba ngay dem yóbbaale nga no loo yóbbaale xaalis. ban tey ban lii duñ ci jubóo. kii ambassade. maanaam yow dem nga ba Amérique jënd foofu chaîne te tëggi Sénégal ñoo ko dàq defar. mooy yow wala. c'est waa léegi fii noonu. Turquie waa ambassade Turquie bokkuñu woon ci affaire bi. waa Turquie bokk déet xam ne dëgg. soo bëggee fi ma ñëw waa Turquie ñëpp ko doon def mais Turquie bokkuñu ci woon. Mm-hmm. waaye depuis le onze bi passé waa Turquie dañ changé doxalin uti benn agence jox ko affaire yi léegi doo dem ci ambassade ba agence ba léegi sax la nga daan fay sax dañ ko yokk déglu xam nga ñoom képp koo xamante ne xam na ambassade Turquie bu njëkkoon pour euh, mosaan déposer visa bu la mayul euh, dañ lay delloowaat sa xaalis parce que dañ doon wax naan dafa xaram léegi bu la mayee nag nga soog a fay frais de visa. ñu dem dem dem ba jëmm jamono léegi ñoom ñu ne frais de visa yi may ak ñàkk yëpp kenn dootu ko delloo maanaam frais yi dootuñu ko remboursé loolu lépp amul benn problème yoon na maanaam mu nekkoon quarante mille francs léegi nag euh, fan yi mu waxoon ne dañuy décentraliser seen visa yi maanaam dañ koy génne fa mu nekk fan résidence dañ ko yóbbu feneen onze nag ci lañ ko yóbbu point E mu ko yóbbu point E benn agence boo xamante ni moom ñooy traité léegi dossier yi maanaam da ngay dem ca ñoom point e déposé ñoom jur ko yóbbu ambassade ambassade bu ñu paree tolluwaat leen ko comme waa VFS global rek mais li ma ci jaaxal mooy visa normal yi frais mi nekk quarante mille frais de service boo xoolee ñoom ñu ngi ko def quarante sept mille deux cent maanaam boo xoolee frais de service yi moo ëpp fuuf frais de visa yi donc boo boolee nit koo xam ne dafay ñëw pour une première fois di demander visa première euh, entrée benn entrée dina fay au lieu de quarante mille léegi day fay léegi lu jege quatre vingt dix mille francs day fay maanaam quatre vingt huit mille deux cent parce que day jël quarante mille plus que yeneen quarante sept mille deux cent ba boo paree ñu ne la nga fayaat mille francs pour SMS pour bu dossier yi paree ñu envoyé la donc loolu boo ko calculé lépp lépp lépp day nekk quatre vingt huit mille deux cent léegi bu dee entrée mutuelle maanaam koo xam dafa ñëw pour renouveler mi ngi doon fay cent douze mille franc. ñu jékki-jékki daal di kii ci yokk quarante sept mille franc boo ko calculer lépp day nekk plus message bi ngay fay mille franc day nekk cent soixante mille deux ma jàpp ne wax dëgg fa yàlla loolu du yoon ça c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop comme tey yéen ay porte de voix ngeen ngeen wax ci ngeen def seen seen ngeen wax ci sa seen axulaay taala yi dégg nga ko. ambassade d' accord na métti na lool ci ñun réew yi réew yi néew doole yi. waaw mais comme ñoom xam nañ ne looloo fa mhm. mais ku ci dem kay naxuñu la nag ban. mais sunu état yi ñoo ñoo ñoo ñooy seetaan. lu ñuy nangu ambassade yi di ñëw mais xam nga yow ñoom souveraineté bi ñu am ambassade yi ak lan moo ci seen intérêt xam nga seen souveraineté lan moo ci non seen état yi waaw non koo leen mayul visa delloo leen ko seen xaalis ba ba cinquante pour cent sax waaw parce que nag baan bul fàttali ne buy demandé visa ka ngay toog mu lay laaj la questionné mu xëy huit heures dix dix waaw kooko dañ koy fay waaw am déet suñ ko dee fay nag mën a ñooy ñëw la ñuy liggéeyee. Ah. mais yow mii lañ yow mii lañ may visa yow yow yow ñi ñu may visa nañ fay ñooñu. mais man mi ñu mayul dara dara dara dara dara ba pare jël sama xaalis lekk ko. mais déet lool boo loolu bu boobaa dinañ may visa ñoo xamante ne ji waruñu am visa. parce que ñoom xaalis ba la ñuy visé. ah ñun ñett ñoo dem wuti visa. waaw ku ne yor par exemple cinquante mille dem déposé toog di xaar. ñu may leen yee ñaar yéen nañ lekk seen cinquante mille waaye man miñ mayul nañ ma delloo samay cinquante man loolu métti na ma trop. man daal pour man man <laughs> baal pour man. lool métti na ma ay këyit ak ay wuti ay bii gañ bi perte la. waruñoo nangu daal déet warta demee noonu nag. ah man pour man loolu la quoi dama ne parce que dama yaakaar ni buñ la mayee mooy sa chance nga gëñ a dem buñ la mam mayul nga essayé waat. essayé waat boo nga déposé waat fa dugal xaar ñu lekkaat ko ah, mayaatun la man daal man daal man daal xam nga lu ma metti mooy fi nga xamante ne ji nit waru fa rang ñu fay rang loo doomu aadama baax na Aba da ngay dugg ci ambassade yi ñu lay weer ci bunt ba ngay toog di rang. Mm. da ngay da ngay liggéey ba weer dee jël sa xaalis jox ko banque war koo jëli dem ñu lay rangloo. Oh, loolu moom du dëgg du yoon. xoolal mu autoroute à péage bi nga xam ne dañ naan la péage bi moo gën a gaaw nga fay ba pare di rang. di rang du yoon. léegi yow bu fekkente ne da ngaa ñëw burle péage bi wala nga ñëw ba ca péage ba amoo loo fayee dañ lay alamaan. nga fay lu ëpp. waaw waa léegi boo ñëwee ba yegg si ñoom ñu paan. noo war a war nañ leen a dañ leen a war a alamaan bu déedéet dañoo war il faut que ñu prévoir loolu xam nga ñun bi mooy ñoom ñoom li ñu warloo ñoom rek la ñuy seet mais ñoom li ñu warloo ak ñun seen yoon nekk soo nekkee ci yoon daal ci péage bi waaw ah waaw te ñoom nekkuñu ci yoon war nañ leen a teg ay daan mooy li ma la wax nag ñoom péage bii c'est-à-dire fii dañu dañu sàggane consommateurs yi ah. sàggane goo xamante ne jii ah, ah, association des consommateurs yi da ngay waaru da ngay waree ba tas lay abaa kii nii dégg nga waaw waaw kii pourquoi là c'est très dafa mel ni dafa xale bu jigéen dafa am histoire bu ko bett. dafa am jëkkër. mu ne ëmbal na ma nag. waaw ëmbal na ma nag dafa am jëkkër. Hmm. depuis tabaski daaw tabaski daaw lañ ko may jëkkër. portable am moog benn xaritam ñu dem fa ñuy defaree. auditeur bi dëkkoon Côte d'Ivoire nu mu tudd. allo la woo démb. auditeur la. ki nga naan xaw ma lan tur yi ku koy wax rek nga wax lu newul sa intention. <laughs> <laughs> dégg nga seetal ma tur bi yeggal dégg nga man jaata ijaata xaw ma lan. <laughs> dégg nga léegi moom benn copinam ñu dem fa ñuy defaree puce yi puce yi par téléphone yi damay bañ a tudd compagnie ci puce yi rek. puce yi mm-hmm. xaritu abaa yi. Mm-hmm. fekk fa benn waay waa ji doog ni ko ni ko rafet nga rek xam nga waxtaan ci biir ay waxtaan mu eh, ñu échanger ni numéro. fekk moom dafa am jëkkër. Mm-hmm. ci ay waxam. nee na mu génn ci biti toog ci naaju tàng bi di xaar copine bi ci biir waa ji romb ko ni ko yow xanaa da ngaa sonn mun ko mun ko danga ngaa da mar naan ma may la ndox waa ji ni ko mu ndaw si ni ko mu dugg mu may ko ndox femme bi ci ay waxam nee na ba ko waa ji mayee ndox daal ci la sentir ni yëgatul boppam hmm? nee na waa ji wàcc jël ko yóbbu ko këram séq ak moom la muy séq ak moom ñu teg ca àjjuma xaw ma alxames samedi ca lëndi ba ndaw si ca boppam nee na moo sol daal lam demaat kër waaja nee na ba ma fay dem nag moom dara jotuma maa fa demal sama bopp mm-hmm. waaye nag ëmb naa nag te dama am jëkkër te sama jëkkër day ñëw <laughs> tappa nee na moom li ma jaaxal li ma def ay ree nee na waaye yow xalaas yéen laa yaakaar ci sama ëmb bii ndax ëmb bi am na ñetti weer man ko looñ ci yaakaare ñun duñu ay mercé duñu yàqkatuy biir léegi nag yow looñ mu ne ñu ni mu ni tegal leen ma ko amee ah, xëy na ku ko xelal la la ci yaakaar loo koy xelal ñetti weeru biir waaw sa jëkkër néewu fi mm-hmm. ah déglu ko waa àdduna yëpp yëpp ngeen jàppale ma ci xalaas bi billaahi wallaahi boo leen ci taxawul lu baax man moom mooy yàqu naa parce que man xalaas bi ma am jëkkër ba benn waay boo xamante mu gis ma promosé mu bëggil ci sens yi après bi mu ko waxee man tamit man tamit xaw ma lu ma daal mu ne ma naa ko jox sama numéro bu mu yëkkati sama numéro man tamit ci sama dof nangu naa foofu ma daal di ko jox sama numéro bi ma ko joxee sama waaju woo ma ci saa si moom mooy waxee waxee caaxaan boobu am naa jëkkër waa ji tam man ba tey waxagum ko damaa am ji après ma ne ma toog ba si yàgg ma man ma kii du jaati sama tur ma ne ko waa. mu ne ma yow da ngaa mel da ngaa màtt ci boobu dama mar dama sonn mu maa ngi sonn noppali ko mu ma xaram may la fi dugg foofu ci biiram bi foofu mu tàng ndox jox ma man daal bi ma joxee ndox bi mooy pare na ma joxee ndox mooy pare na waa ji jël ma yóbbu ma yëpp yëgu ma ji utilisé ma waa ji daal ma yëfu saay ma toog sama kër feebar te sama jëkkër tuwaaw lii depuis tabaski ba tey avant tabaski kay avant tabaski gisuma sama jëkkër moom mu ngi foofu di dikki man maa sunu kër léegi nag waa ji na ma man nga léegi xaw ma nan laay def te dégg ñu ngi ma jàppal date de muy mois de août. waaw di leen ko suba comme wax ci jeexul. voilà mois d'août lañ ko war muur. buñ teg dara yow kii ko rek. Ah. andiwaat ko suba. ñu ekko ubbee ko ubbee ko suba. Ah. su fekkoon ay xale la yoo xam dañoo jógee. Hmm. nu ñuy di la ko expliqué dañu naan ay waay na ay waay mën a waay a représente représenté naa yàgg lay la du gouverneur général Afrique centrale AF le port Sédar Senghor Diatta 1964 ba 1982 ba 2012 Macky Sall depuis 2012 ñam fi ñëwaat xaaran ba xam kii woote bëgg jot président kooku kala rek fa lay woote salaamaaleykum allo waaw salaam joxal tur beeg sant fi ngay wootee Bamba Fall maire Médina Bamba Fall meeru Medina. waaw. Bamba dégg nga yaa ngi toj dëkk bi. ah nan laa ko tojee sama waa ji. Ah, ah waaw waxal waay nan laa ko tojee. ah nga mën a def lu baax mais wuy ma. waaw sara meer. waaw naka Medina. waaw Medina de ñu ngi fiy góorgóorlu rek. ah ba mel lu waral woote bi nag. waaw président laa soxla woon mën naa ko jot wala. président rek moom yow moom bëggoon naa nga jot ko ndax fan yii damay dégg muy wax say wax. ah, <laughs> ah waaw waaw dégg ah, naa. ah waaw loolu moom loolu moom eh, waaw nan lay waxee samay wax noonu. président kay xam naa ne moom. moom la moom ku am ci wetam yow yaa ko ci gëral yow. ah ah bëgg soxla dara ci ah, wetam de. Ah, ah, loolu man waxaguma ko. ah ci wetam wi ma. man loolu man man loolu man moom waxaguma ko. ah déet moom dina dina la woo wala est-ce du yow yaa bañ. déedéet déedéet xam nga man jawaane koo xam ne. waaw. góor laa te sama yaram bi dërëtu gor moo ciy dox. loolu leer na. lépp lu ñor Medina rek man ñor na ma. waaw te yow ancien PS nga. te ah waaw waaw yow ñun danoo gore ñun danoo gore. ñun nee naa la fa ñu ne woon fa lañ ne ba tey. dëggal dëggal kenn mësuñu faa jëlee. dëggal te gis Medina gii. waaw wax dëgg yàlla képp ku sànni xeer. da soxor rek. képp ko wax safaan. Hmm. da ngaa soxor rek. Hmm. waaye xam nañ bu dee liggéey. Hmm. ñun jaayuñu sunu bopp nag. weer na waaye ku wéet xam sa bopp. weer na maire yëpp ci ci yow la ñuy a roy. ah waaw waaw waaw waaw waaw loolu moom loolu moom loolu moom kontaan ci lool. Adja <laughs> bu président ñëwee ma ne ko Bamba Fall nee na lan. bu ñëwee daal ne ko Bamba Fall nee na. waaw su fekkee damaa soxla ci wetam. waaw na dëppoog li nga xamante ne moom la Medina bëgg. Ah. Medina buñ ma bu ma woowee ci liggéey Medina gii. man sama bakkan laa ciy teg. weer na gis nga xoolal ma terrain jaraaf bi. waaw xoolal fi fi ma ko jëlee. fi ma ko indi mooy terrain bi daa mel ne ak dex. ku ñëw ci mbir boo yokkul da ngaa wàññi te man yàlla xam na ne bi ma ñëwee yokk ma taxu na jóg te ah nit ñi ngi seen bopp. terrain bi da daan taa ba nga xam ne kenn du kenn du a waaye dama ne boo fa tegoon Titanic du dig. maa gis gazon ba kay. ma boo fa defoon ci taan du dégg te loolu mooy liggéey. ba léegi mais teere ba ban problème ci am nag léegi. ah léegi daal am na ñoo xamante ni maanaam xam nga xam nga xam nga yonent bi sax muccul woon. waaw kon nag ñun bu ñu waxalee lu ñaaw ay naan liggéey yu dañuy dóor rek yooyu yëpp seen wax yu ñaaw la rek. ñun kenn dàq ñu liggéey yow xam nga li ma wax. ah yow teere boo xam ne kat fi la euh, jaraaf fa la daan entraîné woo. teere bu nawet jotee mu taa nga ñëw defar ko gazon defar ko ba mu rafet. waaw léegi loolu loolu la jeexee. ah non non soxor rek. te ah, xam nga ne élection maire yaa ngi ñëw. kon de jommi na. loolu loolu moo tax fi mu toll nii am na ñoo xamante ne bu ñu bëggee ci ah. boo wàccee woon weer wi suuf ne leen or a ngi jamaa ngi nii sax du tere ñu sànni la xeer. Ah. te loolu nag wax dëgg yàlla ñun loolu ñoruñu. ah avancé ah, ñun Medina moo ñor ak liggéey. nit buy liggéey dañ ko war a encouragé. ah waaw loolu mag Sénégal nag looloo fi amul. xam nga fii fi am. mooy ngay liggéey ñu bëgg a ko jël seen bët toog ci siège bi nga toog yaakaar ne àdduna ak biiram la cam. ñun sut ñun. du yoon réew ñu bëgg. ñu teg. du yoon waaw président nag moom nee ko. waaw ah bu ñëwee nee ko wax dëgg yàlla su fekkee soxla na ma. jaal na ma woo ñu gis ñoo xam. aja incha allah waaw. xam naa ne moom soxla na la ci wetam moom. waaw waaw waaw loolu waaw waaw. oui correspondant peut-être pour le moment vous appeler ultérieurement. moom Medina li ko war.